madame le ministre euh, Zahra Iyane Thiam euh, ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am na ñu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni yow yaay ministre de la microfinance de l' économie sociale et solidaire. alors madame le ministre 2011 euh, bokkoon nga ci ñi nga xam ni ñoo doon xeex ci cadre M23 ci li nga xam ne jàpp nañu ne du yoon nguur gi fi nekkoon daan ka def. ëllëg ci talaata ji daanu fàttaliku événement bu rëy boobu amoon 2011 ñu bëggoon yow mi ca nekkoon euh, nga dikkaat ak ñun tey ci li nga xam ni euh, ruusee na ci xeex bi ngeen doon xeex te mu doon njariñ tey ci Sénégal. waaw jëf soxna Fatou Thiam maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu mboolem mbokku Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu di nuyu également waa groupe mi FM yépp ci nga xam ne ci bopp bi suñu xarit moo fa ne muy le président Mbagnick Diop comme ni nga ko waxee ëllëg euh, dinañu fàttaliku 23 juin 23 juin nag ku ko dégg ci histoire u Sénégal xam ne date bu ñëpp di fàttaliku la ndax 23 euh, juin euh, ña koy fàttaliko ci place Soweto keroog ba nga xam ne waa assemblée nationale député yi bëggoon nañ voté loi boobu ñuy wax ticket bi ticket présidentiel mais lu jiitu bés boobu nga xam ne mën nañ wax ne moo doon piku xeex bi dafa amoon ay weeri weer yu ko jiitu nit ñëpp dajale woon moo xam politique yi la moo xam euh, mouvement yi la moo xam société civile bi la moo xam syndicat yi la moo xam étudiant yi la moo xam presse bi la ñëpp a taxawoon ci ne ah sunu sartu réew mi kat liñ ci namm gannaaw bi nga xam ne ay junni junni junni sénégalais dañu taxaw ci ay at yu bari di xeex li ñu namm ci suñu sartu réew moom mooy ñu sàmm ko aar ko ba nga xam ne kenn du ko caxat caxate kenn du ko jalgat mu bokkoon ci également lii ñuy tuppee démocratie mooy àq ak yelleefu nit ñi aussi ñu mën ko sàmm bu baax a baax xeex boobu nag te nga xam ne vraiment ñëpp ci àndoon mu mu méngoo woon aussi mu tombe woon ak beneen wàllu xeex buñ doon woowee assise nationale nga xam xam ne dafa xalaat moom tamit ci système de gouvernance su réew mi nan la war a demee ñëpp bokk ci loolu lépp la jur euh, man jàpp naa ne euh, bokk na ci deuxième alternance bi nga xam ne am nañ ko ca at mu topp ci xeex bi ndax euh, xeex bi ba may metti lool mi ngi tombe woon nag ñu naan suñu président bi fi nekkoon muy le président lay Wade ñu koy sargal di ko nuyu au passage Euh, foog naa feete na anniversaire am bu yàggul ñu ngi koy ñaanal aussi mu yàgg ñu gunge mu ànd ak donc boobu mi ngi troisième mandat ñu ne troisième mandat bi waru ko am donc ñëpp taxaw euh, yàlla def li gën suñu constitution réew ne mën na am troisième mandat ñenn nanguñu ko ne ñenn ci ñun nangu ko te ñun ñu mën ci ràññee ki nga xam ne mooy actuel président réew mi muy le président Macky Sall mu nangu ko euh, ne réew mi république la bu république bi waxee li des mooy nangu mu dem jongante yàlla def mu yóbbu ko deuxième tour bi deuxième tour ñëwee aussi mboolem candidat ñëpp la xasaay ànd ak moom donc tey ba mu jëlee ci ndam donc tey bu ñuy wax vraiment ak yi mën nañ ne xeex boobu yëpp bokk na ci li nga xam ne xëy na indi na alternance bi bi mu indee alternance boobu aussi mouvement bi continuer na di dox mais li ñu mën a nemmeeku tey mooy ci biir doxam boobu am na ñenn ñoo xam ne dañu ci continuer dañ ci jaare dem jëlaat seen yoonu bopp am na ñoo xam ne dañu dellu ci li ñu nekkoon am na ñoo xam ne dañu génn am aussi ñoo xam ne ñoom dañu bëggoon wëy rek continuer ci ci façon xeex boobu ci anamu mouvement M23 mais man li ma jàpp tey li nga xam ne loolu daal mooy acquis bi ma gën a gis si wàllu xeexu M23 mooy euh, M23 dafa jóge ci mouvement nekk ci doon lu ñuy woowee euh, esprit euh, xaw xawma nan laa ko mën a tekkee ci wolof mooy mais le mouvement M23 deux statuts de mouvement s'est mué en un esprit voilà l'esprit M23 te pour man esprit M23 bi mooy kenn ku ne foo ne da nga war a taxaw da nga war a xeex ngir jëmmal sa réew xeex ngir luy aar sa réew xeex ngir loo xam ne sartu réew mi dafa war a taxaw mu doon lu gën ci nit ñi donc loolu bokk na ci li nga xam ne vraiment jàpp nañ ko jëlee nañ ko ci mouvement boobu ñu duppee le mouvement du 23 juin. ñu bari nag euh, ñu ngi Euh, joxoñ baaraamu tuuma surtout yéen ñi nekkoon euh, ci euh, M23 boobu ne la ngeen doon xeex démb mi ngi fi am tey waaye comme yéen a ne ci nguur gi waxu leen ci dara looy tontu ci loolu. waaw xam nga nag yëf yi liñ doon xeex démb. lu ci bëri te mu jëm ci wàllu gouvernance ci wàllu yaxanal sakkanal alalu réew mi ci wàllu képp koo xam ne yaa ngeeg dénk nañ la lu jëm ci wàllu doxal réew mi nga nga mën ci di rendre compte loolu dañuy jàpp ne li ci président jéego ci président Macky Sall def jéego yu mucc ayib la ndax bu kenn fàtte ne ci ayam la loi déclaration patrimoine am mais bu kenn fàtte ne aussi ci ayam la li ñuy wax nak nga xam ne mooy xeex corruption ak concussion am mais également ci ayam la Sénégal ñëw dem adhéré ci initiative boobu ñuy wax ITIE te mu doon initiative bu bu boo xam ne day tënk réew yi nga xam ne dañu am euh, alal ci wàllu suuf mooy ressource naturelle ni ñu koy liggéeyee ak lañ ciy def lépp dafa war a leer lépp lu ñuy def aussi dañ ci war a sédd ñi fi ne ak ñi ñi nga xam ne ñoo war a ñëwi ci ayu président Macky Sall aussi la yu mel noonu amee ak yeneen mbir yoo xam ne bu fekkee ne rek ci wàllu liñ doon xeex mooy naan gën a yaxanal gën a leeral ak gën a mën a jubal loolu jéego yi ci président Macky Sall def jéego yu am am solo la te euh, réewu àdduna yi aussi euh, ràññee nañ ko maintenant li ñu war a tàqale ak li nga xam ne nee nga ñenn ñi ñi ngi naan mooy aussi waxu politique yi nga xam ne euh, ñaare da ciy laxasu ndax kenn ku jug jëmmal dara rek xëy na am na loo ci mais li am solo mooy bu ñu jàppee ne réew mi ñoo ko bokk dañu war a toog di waxtaan Euh, ñëpp gis nañ ouverture bi nga xam ne président Macky am na ko ci waxtaan am na ko ci concertation am na ko ci recueillir xalaatu nit ñi ci gouvernance bi muy def loolu quand def nañ ci ak yu mucc ayib li woor nag mooy jëfu nit moom toujours dañ koy war di gën a ñoŋal toujours dañ koy war di gën defar donc euh, sur la durée dinañu gën a ñoŋal gën a defaral ba mu gën a dëppoog li nga xam ne moom la askan bi di xaar. Hmm, dañuy faral di citer yenn dossier yoo mel ni petro Petrotim ak euh, Prodac ak yu ci aju euh, ñeel yorinu kopparu réew mi ci wàllu woowu ndax jàpp nga ne président Macky Sall def na ci jéego yu yi ci président Ablaye Wade ak nguur gi fi nekkoon def. waaw xam wàllu boobu dañuy jàpp ne réew mi dafa am ni muy tëddee ni muy tëddee mooy kenn ku ne pouvoir bu ne ak li ngay sayt exécutif bi nga xam ne président Macky Sall moo ko yor mi ngi ciy def li mu ci war a def justice bi aussi li mu yor mi ngi def li mu war a def ak num ko soobee ak nan la ko war a defee ndax ñun politique yi du waruñu bëgg bëgg bëgg ba ne li ñu bëgg bu amulee rek kon li nekk baaxul loolu benn la te tey mënuñu ne jalgati nañ yoon ci dossier yi ñuy wax ndax dossier yi ñuy wax kenn ku nekk mi ngi wax xalaatam mais yoon mi ngi joxe li ci ne xanaa kay nit ñi bañ a déglu li yoon wax wala nit ñi bañ a ànd ci li yoon wax mais euh, tey si tey amul benn dossier boo xam ne yëkkati nañ ko euh, di ci euh, def di ko doxal di ko saytu di ko càmbar di ko xool te ñu ne ah nguur gi defu ci lim ci waroon def wala jalgati na ci yoon loolu aussi mooy démocratie démocratie kenn ku nekk bu waxee bëgg-bëggam ba pare li des mooy nag li sart yi wax ñu ñu ànd ci te ci wàll boobu également également président de la république jox na pouvoir yëpp justice pour que ñoom tamit ni ñu waree ñu defee ko noonu moom ci boppam nag aussi li ko sartu réew mi may ci wàll boobu aussi mu doxal ko ndax am na ci ay prérogatives yoo xam ne Euh, yoon daf ko ko may. alors ñu wax euh, ci euh, lu ñeel suuf si yorin wi rawatina ak bi ñu nee ñoo ngi koy jaxat jaxatee di joxe mbir mu ni mel yow ban jàngat nga ci def ak coow li ci jug yëpp. waaw jàngat bi ma ciy def rek mooy na ñëpp tënku ci li ci yoon wax parce que xam nga wàllu suuf dafa nekk lu sensible. lu doy waar boo leen fàttalikoo sax bi président de la république ñëw tegoon na fi commission nationale bu war a saytu ci wàllu réforme foncière commission boobu jotoon na wër réew mi yëpp waxtaan ak acteurs yu bari mais ba tey liggéey boobu aussi am na lu si des ndax euh, réforme foncière bi ak wàllum suuf du rek dafa yem ci littoral bi wala nga dem ci bande filao yi romb na loolu ndax même tey ñun Euh, dañuy dem ci ay gox yoo xam ne dañuy fekk population yi ñu ñuy wax sax ci découpage administratif bi fii ñu daggee suuf si ànduñu ci warul yem fi war na yegg fii gox bi fii la bokk warul bokk fii donc vraiment c'est une réforme globale boo xam ne dañ ko war a def très attention mais ñi nga xam ne aussi ñoo ci war a waxtaan ñu toog saytu ko waxtaan te ñu génnee ci lépp loo xam ne euh, ngir luy luy luy jëppatal euh, taal la rek buy dem ndax xëy na am na yeneen perspective yu nit ñi séentu loolu yaakaar naa ne ñun ñëpp Sénégal war nañu wees foofu ba tax na ministre bi nga xam ne moo yore wàllu boobu dina mi ngi am na déjà xalaat yu si wax am na aussi liggéey boo xam ne président de la République jox na ko instruction gouvernement gouvernement bi ndax question bu ko yitteel la bu ko soxal la moom ci boppam mi ngi koy saytu bu baax a baax donc réforme yi ñu envisagé ak nit niñ ci war a déglu yépp buñ ko defee mu ànd ak xel mu dal foog naa dina gën a jur lu mucc ayib ndax tey si tey li ñu war a wax mooy feebar bi jugee gu fi mooy Covid 19 bi nga xam ne am na yu bëri yoo xam ne daf ko feeñal daf ko génne ndax feebar bi li muy metti am na également yeneen feebar yu bokkul ak moom yoo xam ne daf ko génnee wane donc yooyu yëpp dañ ci war a taxaw te niñ ci taxawee comme ni ko réewu àdduna bi yëpp di defee mooy ñun ñun suñu wàllu bopp ñu nekk benn xool fan la ñu bëgg jëm euh, liñ ci war a liggéey yëpp ñu liggéey ko ci mais effectivement question foncière bi moom mi ngi fi am na aussi ay jafe-jafe yu fi ne mais buñ koy traité aussi dañ ko war a traité ak sang fois traité ko ak xel ba nga xam ne euh, du du lor kenn du gaañ kenn te dina mën a jural euh, jëriñ askan bi hmm, joxoñ nañ ci baaraamu tuuma euh, président Ablaye Wade ak régime am ñenn ci ay responsable yu coalition présidentielle bi waaye ñi fi ne tey itam am na ñu jàpp ne am nañu wàllu wu rëy ci fi fi toll. waa xam nga wàllu suuf yoon daf ko daf ko tëral. kenn ku ne nu mu war a demee luñ ci war a def luñ ci warul def loolu lépp nag bu fekkee ne dafa am ku ñu tooñ ci wàllu suuf waaye waaye sartu réew mi li mu wax mooy buñ la tooñee da ngay dem ci yoon waaye nga gis nit ñu tooñ la nga dem rajo wala nit ñu tooñ la nga dem tele mais su fekkee ne dañ la tooñ yore nga këyit yi firndeel ne dañoo la tooñ mais boo bëggee mu faju fan xam nga fa nga jëm dama feebar waaye duma dem ci docteur ci boutique naar bi laay dem du sotti kon yooyu la ñu war a génnee ci ay question nationale euh, joxañ tuuma euh, li ko gën a wóor gën ko wér gën ko dëgër mooy génnee lu wane ne tuuma bii nga joxañ kat dañ ko def nga dem yoon àtte la jàpp naa ne politique la xasu na si mais jàpp naa ne aussi séentu ak waajal lu yegg seegul bokk na ci te nag séentoog laajal waajal lu yegg seegul kooku yaakaar naa ne boo koy def tamit na nga sabab rek waaye dogal laak la ci xew moom faw nga bàyyi ko sunu élection yi ñu dëkk mën muy élection muy yeneen mbir ndax xam nga mënumaa ne ci bopp nit ñi Euh, pour xam lañuy xalaat ak la ñuy waajal waaye la mu ndax damay jàpp ne su fekkee ne euh, surtout ci wàllu suuf si ñuy wax euh, li fi ne yàgg na lool problème bi ak xalaat yi ak liñ ci war a def yàgg na lool lu tax ñu toll ba tey jëppët wax jooju jib fi te mu nekk wax joo xam ne mënoon nañ ko wax boobu ba léegi di ko indi. ñiy xeex ci littoral bi jàpp nañu ne tey la waalo gën a aay ñeel euh, bradage bi ni ñu koy waxee. waaw loolu nag la ma la ma wax sànq rek laa ciy dellu. Hmm. fekkee ne rek nit dafa am loo xam ne tuuma bu muy teg yor li koy firndeel rek bu mu dem ca ca na dem na dem ca fam ko mën a kalaamee. mu jëru résultat mu clamé ko fa mais bu fekkee ne da nga ko clamé ci place publique bi rek dañ naan ah xanaa boo yoree sa ndënd di ko tëgg foo xam ne nit ñi dégguñu galan da ngay sonal sa bopp mm-hmm. rek boo ko tëggee nag fa nga ko war a tëggee da nga ko da ca am la nga ciy wut mm-hmm. kon jàpp naa ne tey ku bëgg sàmm littoral bi ku ko bëgg kii war rek génneel la ka la nga yoon yóbbu ko fa mbaxana doonee benn dina dina gën a mën a efficace. dañu lay gis itam ngay faral di yittewoo lool wàllu njàng ak euh, njàngale ba nekk nu yenn ci ay euh, école euh, alors ndax am nga yaakaar madame le ministre ci ubbite gi nga xam ne jàppaat nañu ko ñaar fukki fan ak juróom gannaaw ba mu sottiwulee ñaari fan ci weeru join bi yaakaar nga ne bi yoon dina sotti. waaw loolu moom nga xam ne jëwriñ ci yor wàllu jàng bi moo ko wax te muy le ministre Mamadou Talla ndax euh, lépp loo xam ne euh, yemboon pour école yi ubbi am na euh, wax na ko gouvernement bi aussi taxaw na ci lépp loo xam ne war na nekk waaye li nga xam ne maa ngi koy ñaax askan bi mooy dëgg la xale yi dañuy jàngi gouvernement bi am na taxawaay bu mu war a am mais ñun aussi en tant que askan en tant que parent am na taxawaay bu buñ ci war a am ndax suñu ay doom ñooy dem jàngi man sama ay doom dañuy dem jàngi beneen ak parents seeni doom dañuy dem jàngi kon école bi eh, ñun ñëpp ci war a dugal suñuy loxo moo xam enseignant moo xam parents d'élèves bi moo xam état bi moo xam collectivité territoriale yi vraiment kenn ku ne ca commune ba mu ne war na dugal loxoom bu baax a baax ngir ñu ànd ak ministère de l'éducation pour suñu doom yi mën a jàngi jàngi bu mucc ayib yeneen réew yëpp def nañ ko kon xawma lu tax ñun Sénégal waruñu ko def d'autant plus que taxawaay bi réew mi am bi feebar bi ñëwee léegi nekk taxawaay bu mucc ayib nekk taxawaay boo xam ne àdduna bi ñëpp rafetlu nañ ko ne dañoo bàyyeeku ci xeex bi ci loolu mais kon tey li nga xam ne moo gën a wóor ci wàllu école bi mooy ñun ñëpp ñu ñu joxante loxo ngir xale yi mën a jàngi moo tax aussi maa ngi lancé appel bu baax a baax communauté euh, enseignement supérieur euh, enseignement privé bi ndax wax nga ko euh, damay saafonteeg ñoom lu bëri di bokk naa ci nekk naa marraine ci école yu bëri kon aussi maa ngi ñaan aussi ci secteur enseignement privé bi ñun ñëpp ñu vraiment joxante loxo pour que ouverture boobu mën a nekk lu mucc ayib bàyyeeku bi ñuy wax nag man duma ko tuddee bàyyeeku ndax boo seetloo ñun feebar bi daf ñu dal laata muy ñëw ci ñun te nim ñu dalee ci suñu ay bopp la jàpp ndax boo seetloo depuis bi cas yu njëkk yi commencé Wuhan suñu doom yi ne ñu gis feebar ba lim fa def gis nit ñi niñ fa nekkee muy wàcc ci yeneen réew yi ñi gis nombre de malades yi mu faat boobu ñun feebar bi dal na jàpp na suñuy bopp ba pare ba tax na premier cas bi biñ ko waxee fii rek boobu fekk ni ñun ñëpp tiit nañu suñu ay fit rëcc na heureusement nag ba nga xamee ne état bi taxaw na président Macky Sall taxaw taxawaay mucc ayib boo xam ne ñun en tant que membre du gouvernement suñu naataangoo yi ñuy wax ci yeneen réew yi wala bu ñu déplacé woo ku nekk dafay sargal président de la république ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci xeex bi kon Sénégal def si taxawaay bu mucc ayib boo xam ne tey bi ñu demee nag ba xam feebar bi miin ko xam li nga xam ne buñ ko defee xëy na dinañ ko mën a moytandiku kon euh, damay jàpp ne du relâchement mais xel mu xaw a dal la ci feebar bi ne ah lu mu metti metti bu ma defee lii mën naa ci mucc hmm. kon tey li ëpp solo mooy ñu continuer wax ak nit ñi continuer leen ñaan ci geste barrière yi guñ ko bàyyi mais li wóor mooy am na ñaari mbir yu am feebar bi mi ngi fi xamuñu kañ la fiy jóge te war nañu mu continuer war nañu wëyal di dund ni ñu war ni ñu doon dundee maanaam di dem di wuti suñu taaba taaba am lu ñu dugal suñu poche man maa ngi ni betenti laa jóge ma nga ca boo ñëwee ba misira da ngay jël gaal yi di nga def daanaka lu tollook waxtoog genn wàll di daw ci biir géej gi pour dem betenti te ba ma demee fekk naa fa mesure barrière yi fekk mm. naa fa nit ñi takk seeni masque et cetera mi am na ay te économique yoo xam ne dañ ci war a taxaw pour que nit ñi mën a continuer ci dund gannaaw bi ñu sargalee suñu personnel de santé yi sargal service de défense et de sécurité yi sargal administration territoriale mais sargal surtout le président Macky Sall bi nga xam ne wax dëgg yàlla def na taxawaay bu mucc ay ci xeex bi te ñu koy ñaanal suñ borom gën ko taxawal gën ko dëgëral ba nga xam ne yéene yi mu am ci askanam yépp bu ci matalewul lépp tamit mu def ci loo xam ne ñëpp dinañ ko ne waaw góor mm. euh, loolu bokk na ci vraiment en tout cas li ñuy ñaan te di firndeel encore di réitérer euh, taxawaay gouvernement bi suñuy taxawaay ci nekk ci wetu askan bi ngir lu lu leen jëmale kanam jërëjëf madame le ministre Zahra ci Thiam yow la ñu denk wàllu microfinance économie sociale ak solidaire amoon nañu mbégte lool dalal la ci matinalu tey bi ñu ngi lay gërëm bu baax ci disponibilité bi maa ngi leen di tamit bi yéen a ngi def liggéey bu mucc ayib yàlla na leen yàlla sàmm taxawal leen aussi mm-hmm.